di nuyu Sénégal yëpp di leen nuyu euh, di nuyu Bour euh, message bi moom def naa ko ni tey ñëw jëmmal kasa la li a waroon wax nañ ko avant et fii mooy euh, place bi nga xamante ne ni bépp sénégalais bu bëgg dëgg bépp sénégalais bu fonk réewam bépp sénégalais bu bëgg mbiri jaar si yoon bépp sénégalais boo xamante si nii li nga muñ ëpp na li nga muñ ëpp na li nga dékku ëpp na nga dem ba toll nag foo xam ne mënatoo muñ te mënatoo dékku nga war a taxaw ko fi parce que nak Sénégal xex buñu défon en 2011 2012 ba 17 personnes daanu ci mu bari ay blessé fogon nañ ko ni amna ben benn acquis boo xamante si am ko muy suñu démocratie plus de 10 ans après buñu ñu ci situation bi ni ça veut dire que ni quelqu'un a trahi et celui qui a trahi c'est le président Macky Sall bi nga xamante si ñun ñëpp waccu nañ ci mbedd bi amana du won jëmmam ji mais suñu drapeau mo taxone ñu wàcc ba tax ay bakkan rot ñu dóor ñu si ñi ñak ci sen alal bi mu il a trahi ce combat il a trahi cette révolution lepp lu mu diggé won le contraire le commencé def utiliser na suñu police utiliser na suñu justice fatna sati, fatna trafiquant de faux billets yi fat ku mel ne Mamour Diallo ak ñu ne mel buñ doon lim fële yi fanan kenn kasse la Macky Sall tourné tek fitna muy askan bi ko doon xéxal askan bi joxe woon ak bakkanam

mënuñu boole nag mar location bu metti agression nit ñi di dé ñu bolé ko quelques magat yu tëju le lëkkaloo sen bir di jalgati suñu ak ak suñu yelleef ñu tok di leen sétane assez c'est assez oote bi ñu oote ni je pense que oote la bo xamanteni ne bu patriotique la te képp ku fi ñew xamal ni ci place bi nga warona nek heure bi moy place bi ni donc ñu ngi saluer la présence de tout le monde comme niñ koy waxee rek nañu nañu top ci ginnaaw leader yi nañu leen déglu ñom luñu ñu décidé bu féké dañ dañuy fanane fi dañ fi nara fanane ba Sénégal moomaat bopam bu féké dañ dañuy ñëwaat samedi dañuy nara ñëwaat samedi ba Sénégal mom bopam ah, bu féké dañ ni yem na fi mu yam fi mais ñun ñu ngi ci ginnaaw leader yi ah, parce que leader yoy ñu ñi wax ana seen dom ñun soxla wuñ i dom seen i xalaat lañ soxla ah, seen patriotisme lañ soxla seen sacrifice lañ soxla et ils ont fini de le démontrer bari na ci leader yo xamanteni ils avaient des positions pour mën a s'enrichir comme le font les autres il y a beaucoup de gens beaucoup de gens qui ont trahi le drapeau yoo xam ne tey ce sont des milliardaires sur le dos du peuple. am na yeneen leader nag yuy jaayante yu respecté euh, charte réew mi respecté seen salaire daal di oote politique ci manière bi nga xam ne noonu la ko sunu sëriñ si jàngalee. mooy ci ngor ci ay valeur ñooñu noonu nga xam ne si tiim lañ kees gi jëluñu corrompre nañ leen ñu bañ ñooñu ils ont fini dañu montrer ils ont fini de faire des sacrifices laajatuñ leen dara ñàkk fayda nag weesuwul nga toog fële naan ana seen jabar est-ce que sen jabar ñëw est-ce que sen doom ñewna nous on n'est pas dans ça ils veulent nous mettre en mal avec les leaders les leaders bu gisee bu ñu ootee ñu uy si leen c'est parce que dañu war nañu wara mel lañ doon xaar ci leader ñom dañ ko wané lolu moo tax askan bi topp ci ñom du deureum bu len jox te ñom pour ñu am 100 personnes ils vont décaisser des millions et des ah millions donc dès ak nous nuróowul dëgg ak nous nuróowul tout le monde sait que ni li ñuy c'est la vérité N'a fekk que am par parlo. mais tout le monde sait que le combat bi mené, c'est le combat de la vérité ah et Inch'Allah, nous ah bout manifestation j'ai vu des déclarations un peu partout j'ai vu des déclarations des gens disent qu'ils ils faire une d'abord d'abord c'est antidémocratique C'est antidémocratique parce que jàpp chacun a la liberté de manifester de manifester mais personne n'a le droit en tout cas de participer à des manifestations musulmans opposition pouvoir parti au pouvoir de def manifestation ñu contre manifestation la liberté de manifester est garantie par la constitution Nous devons manifester librement Si nous demande d'autorisation pour manifester parce que la constitution accordé accordée, ko ba nous avons l'autorité préfectorale que nous voulons manifester pour qu'il puisse prendre toutes les dispositions nécessaires pour sécuriser la manifestation mais là de langage la que parce que la constitution nous accordé Nous laaj L'année li nga à deux heures du début de la manifestation ou bien à trois heures nous gis des jeunes ces gens là Dresser ou contre Macky pour nous bañ a euh, suñu constitution dans un dana dans dressé ou quitte à y laisser leur vie man Touba laa quitté deux heures du matin ci yoon bi la j'ai laissé mon travail sur dans le secteur privé daf ma jaral wallaahi lazim bu jaree à bu wàcc man jaral sama parce que damaa jàpp japonais les intérêts propres les intérêts personnels ne font absolument pas le poids par rapport à l'intérêt collectif des Sénégalais aujourd'hui nos enfants nos petits-enfants, les générations futures qui doivent venir, qui doivent bénéficier de nos découvertes pétrolières et gazières, ces générations-là, nous devons combattre pour ces générations. Wolof nak def nan nan bala nga nam man Man moy États-Unis li tax ñu am leur droit de vote et tous les avantages qu'ont les noirs en Afrique du Sud. Ce sont des gens qui se sont battus. Nelson Mandela a passé plus de 27 ans en prison pour qu'aujourd'hui, aujourd'hui les Africains, les Sud-Africains noirs puissent bénéficier au même titre que les Blancs des terres sud-africaines. Mais pourquoi nous nous sommes nous ñuy pourquoi koy les sénégalais nañ bañ chacun a son devoir de résister de résister contre la loi de résister contre les mascarades les fraudes dans les administrations publiques la corruption aujourd'hui les plus quand j'ai lu ce matin hier matin que les salaires des gouverneurs, des sous-préfets, des préfets, des adjoints au gouverneur, les salaires des fonctionnaires sont augmentés de manière considérable parce qu'on attend 700 milliards de recettes de, notre pétrole, de nos découvertes pétrolières et gazières. Au même moment, qui ne pense pas à ces jeunes-là qui n'ont pas de travail, ces ambulants-là, ces ambulants-là qui veulent travailler, qui veulent dignement gagner leur vie et qui sont des Sénégalais à part entière. Ils ne pensent pas à ces gens-là pourquoi ils font, ils fait cela Moi, je n'arrive pas à comprendre cela. Les étudiants, je suis passé là-bas tout, de suite en venant. Ces étudiants-là travaillent dans des conditions misérables. Ils ne peuvent pas réussir comme ça dans ces conditions-là. Pourquoi on n'investit pas pour leur avenir, on n'investit pas pour l'avenir des Sénégalais, comme on a l'habitude de dire. Pourquoi on ne fait pas cela Et au même moment, on se permet de donner beaucoup d'argent à ceux qui ont quelque chose à, ceux qui sont déjà quelque chose pour vivre buñ ko accepté nañ bañ nañ s'il faut mourir il faut mourir pour la dignité. Assalamu man maa ngi tudd Abdoulaye Koli Mbour la jóge euh, li may wax dafa nous assistons à une malgouvernance au Sénégal pas xam loolu les Sénégalais en ont marre de Macky Sall Sénégalais dañoo doyal de Macky Sall parce que la police elle est pour les Sénégalais la gendarmerie elle est pour mais par contre.

loolu lampour am pour wax gars yi merci beaucoup. asalaamaaleykum euh, mbooloo mi mbokki mbokki internautes yi man la malik Niang candidat aux élections législatives avec la coalition Yewwi Askan Wi ak Wallu Sénégal donc comme ni ngeen ko gisee hein ñun ñëpp ñu ngi joggé bokk sa def délégation bu mag boy étudiant yi ñëpp ñu ngi ci ginnaaw avec le frère Amadou Ba mu donc comme ni ngeen ko nous hein ah, ñun ñëpp non au troisième mandat de Macky Sall parce que c'est une forfaiture L'ici ah. liste yewi Askan Wi nga xamné ne ko conseil constitutionnel ak wa DGE vraiment ñun ñëpp lañu juk taxaw tam gis ngeen mi fo mbattu mu tag ni ñi ñëpp ñu ngi bi déplorer parce que j'ai appelé des frères et camarades yo xamné lañu bus yi dañu ko dañu ko arrêté dañ leen lol noonu yooyu yëpp ay pexé Macky Sall waye téréwul mbolom yep ñu ngi fi wax non au troisième mandat non non à Macky Sall parce que vraiment xam nañ ne fi mu jëmee réew mi baxul waaw légui ñu ngi ni tok di xaar suñuy leader ñu ngi xaar les leaders de Yewwi Askan Wi ak les leaders de walu Sénégal fi ba 20h ñu ngi tok tok temm teen xaar d'ici peu il est 13h 13h55 mais gis ngeen mbolom mi ñëpp ñu ngi ñëw waaw léegi nag ñu ngi lancé un appel à toute la population de Gossas ñoom ñi nga xam ne jotuñoo génn donc ñun ñu ngi fi teewal leen ci teewaay bi nu mu gën a rafetee. Euh, li waral motivation bi pour ñu ñëw euh, yow xam nga ko nekkoon nañ ci mois de mars xam nga ba yëf yi euh, tare jël nañ une semaine ñoo fekkee ko dañu bëgg a won gaay que ni rek ni diaspora bi nekkuñu seen ginnaaw Facebook wala ginnaaw ay machine di wax yaakaar ne xam na bokkuñ ci réew mi dañoo bokk ci réew mi jàngee ci réew mi màggee ci réew mi lu ñu taxaw wuti rek mooy indi fii.

parce que tey euh, gis nga aduna bu lépp defee mën nërmeelu justice moo koy téye te justice bobu non buñ ñu ba amatuñ ci ñom yaakaar rek euh da fay daldi réew mi dotul amaté kenn ku ko téye kon lool mo tax ñun dañu am njàkkare ba paré nag fexé def lepp ñew téw fi woné que ni on est là avec le peuple et on va dire à ce conseil constitutionnel là que si ce pays là s'embrase c'est leur entière responsabilité avec le président Macky Sall. Président yaa ngi jógee ba États-Unis pour de 6000 kilomètres euh, par contrairement ak ñi nga xamante ni ñoo ngi cent kilomètres Buur euh, gis nga dama lay jox benn anecdote les années 60 aux États-Unis ba ñu defee boycott bus yi pour que noirs yi bëgg bus yi ñu wàññi prix yi dafa cher ak tamit le fekk ñu doon def ségrégation naan noir mënul toog ci bus bu bu tubaab taxawee noirs yi nee nañ ñu jël décision ñoom ñëpp.

gars ñu wara ñëw dañu wara a génn parce que lu ñuy def nii du pour ñun de parce que ñun suñu génération passé na de suñuy doom la c'est le Sénégal en jeu suñuy doom la kon j'appelle à toute la jeunesse yuy seetaan actuellement Bour News en direct ak foo mënte nekk marché bi 15 h lay commencé fii ba 15 h ba 18 h foo mën a nekk takkal jóg ñëw jàpp ci yëf yi ñu xeex-xeex bi xamal Macky Sall que ni réew mi santul Faye Sall sama mbokk commerçant yi laay waaye maa ngi leen di waxal ne démocratie mm-hmm. saa yu reculer rek dictateur avancé na umpule wala ne fan la gis ngeen benn agar agresseur bu dab nit ak scooter am ba fekk ko ci kër xaaj ci bocc jaasi xaaj nar a rey loolu lii raam ci ñag bi la jëm gis nga bu ngeen seetaanee lii xam nga yéen gis benn Farba Ngom bu luubal bu ñu xaalis këram buñ ñu sàcc këram ay milliards ñu gis ko lu mel noonu te kenn woowu moo ne colonel Diadji Ba dib douane bi ko fi këram doomam wala ay mbokkam defee dañoo dem taxaw jëli ko CREI topp ko gis ngeen loolu ci jaay doole bi maanaam wate taxaas mu jëm wet bu demee ba am nag benn insécurité mooy boot gis nga ki nga yor sa kër mu la koy gardeel wala ki nga dendeel place te xamoo ko mën naa xëy di la jaay jaay la ay band ñu ñëw man laa fekk sa biir magasin teg la insécurité parce que Sénégal dañoo yàgg a dund jàmm moo tax xamuñu ay ak Macky Sall mii nag li ma mën a waat mooy bu fekkoon nañ ba Senghor di jël Macky Sall lañ tombeeloon moo ko jëloon naka ni Sénégal dugg na ci geer civile bu yàgg. Mhm. Sénégal dugg na ci génocide bu yàgg ndax lépp luy euh, waral boddukante ci bindu biiru xeet ku mel ne Aline Bintou Dembourou Sow bocc na fii jaas ne ñun làkk sangam wala ñun xeet sangam maa ngi moo bokk xeet parce que sama yaay pël la mais du ma ko rus di ko wax. parce que bi mu boccee kii dañ ko waroon a woo sifaay ko yamale ko ci yoon woo ko ci yoon woowuñ ko penda ba taxaw saaga wolof yi yamale wuñ ko loolu noon bu demee ba jaay doole googu installé wu nit dootu fi mën a dencati. doro fi amati magasin tok di jaay ñeppay nek en danger gis ngeen bi Ablaye Wade di bàyyi réew mi 2011 bu 2012 bari lu pétrole mi ngi won ci 160 dollars mu ron jaay litre li ñuy wax euh, njafaan gi essence carburant euh, njafaan moy wolof bi mi ngi ko don jaay 830 wala 825 Macky Sall fallo baril bi wacc xam nga 160 la balaa baril wacc ba 28 dollars Macky Sall daal di fii 30 banim ni 50 Macky Sall daal di wàññi essence bi xam ngeen ñaat la ci wàññi fukki deureum 875 tay ji ba baril bi yokkuwut fa toll fa Ablaye tollone parce que ci Ablaye 160 dollars la barki Dembo Ndiaye mi ngi 119 yegagul 120 te Macky Sall jëlaat na fam mu essence bi ci jamonoy Ablaye yóbbuwaat ko bam nek 890 francs 900 francs gis nga yeen bu fekkene essence bi seer su fekkene gaz seer na su fekkene ne diw seer na su fekke ne ciep serna bu len nek seen keur diko xaar wala ngeen ni tok ñu jox len ben 80000 wala ngeen ne ben jangale kat ñu yokal len 30000 xam nga lan la senegal soxla do ay fonctionnaire rek la senegal am senegal dafa am ay gorlu dafa am ay mol mol yi ñu sax teer da ngay dem ay kilomètre doo am jeun kon bu fekke dafa wara wañi nako def ci dundu bi ñepp yëgandoo ko wañi lolu moy deug dafa dafa jot li ñepp bok ñepp jot mbir mi xam nga nan la wara deme ni Touba ci kanam di wax laaj lees man di ko def fees xam laaj lees man nag ñu ngi lay laaj boo ko xamee boo ko xamut ndax ñu ngi lay laaj impôt boo jëndee almet fay impôt soo jëndee diwlin fay impôt loolu la ñuy dajale ba mu nekk 5000 milliards di suñu budget yaa ko natt yaa ko fa teg nit mën na ko dandeex sàcc bu fekkoon imaamu jàkka bi moo sàcc keesu jàkka gi yat jóg ki jiite nawetaan bu jëloon keesu nawetaan yat jóg du ko waxati ay nit ku mel ni Farba Ngom doonoo lu may géwalu président de la république sa kër ñu sàcc fa 250 millions ca bu yàggoon xale bañ ko jàpp ñu daal koy lijjanti barki démb nga daal newaat huit cent euh, quatre-vingt-dix milliards lañ fa teg xab jógul gis nga lii beneen dëkk bu mu amul bu dul Sénégal nit ñi jóg nañu jóg lijjanti lii lijjanti lii nag bu fekkee ne lii yëpp métti na nit ñi yéen ñuy seetaan na ngeen ñëw fii xam nga policier yaa nga ca rond-point bale su nit ñi baree danañ dellu ba fële waaye bu nit ñi barewut fii la ñuy ñëwaat fekk si ñu na nit ñëpp ñëw yelente koon yaa ngi APR sax te ni réew mi demee neexu la na nga ñëw fasal sa naqar parce que nous peuple bi di que un yor avoir une assemblée nationale de rupture une assemblée qui est là pour le peuple sénégalais qui vote des lois dans le sens des intérêts du peuple qui est là pour voter des budgets pour le gouvernement et qui contrôle l'action du gouvernement c'est ça que le président Macky Sall veut empêcher parce qu'il sait que s'il y a cohabitation, il ne pourra plus voter des lois scélérates, il ne pourra plus vendre nos ressources ou brader nos ressources euh, aux, Européens, aux Occidentaux. Maintenant, c'est pourquoi il est en train de tout faire pour qu'il n'y ait pas d'élection. Le président Macky est en train de créer toutes les conditions pour qu'il n'y ait pas d'élection au Sénégal. Parce que vouloir invalider la liste des titulaires de la liste proportionnelle de Yewi Askanwi, c'est une volonté manifeste pour lui donc d'engager la confrontation. C'est pourquoi aujourd'hui on va dire aux Sénégalais, que le président Macky Sall nous appelle à la confrontation. Donc nous devons être prêts, nous le peuple sénégalais. Nous voulons vous préparer à être prêts. et, le moment opportun, nous, nous, allons mobiliser le peuple sénégalais pour faire face. Aujourd'hui, c'est un, rassemblement de sensibilisation pour montrer aux Sénégalais que ce que le président Macky Sall est en train de faire dans ce pays, ça ne peut plus continuer. Nous allons nous battre pour empêcher euh, cette troisième candidature du président Macky Sall parce que la Constitution le dit dans son article 27 qui est de façon claire et nette que nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Il a fait deux mandats, ces deux mandats et deux très longs mandats de 12 ans. Le peuple en a marre, les denrées sont en, en, train de flamber, les Sénégalais en ont marre du régime du président Macky Sall. Donc c'est le moment pour lui de quitter le pays Maintenant, s'il veut abréger son pouvoir, c'est-à-dire s'il ne veut pas attendre 2024, mais nous allons l'aider à quitter le pays. S'il veut maintenant gouverner dans la paix jusqu'en 2024 et, qu'il nous rende notre pays, et que les Sénégalais, et que les Sénégalais élisent un autre président qui est capable de régler les problèmes de ce pays, nous serons euh, euh, prêts à le faire. Mais s'il veut opter pour la confrontation tout de suite, avant 2024, Nous sommes prêts.